والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu leen di nuyu di leen gërëm di leen ndokkeel ci bis bi ñu daje fii ñu jëmmi yàlla ak rasulullahi sallallahu taala wa sallam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu mu xam ne bépp xeet am nañu ay jamono ay béréb ak ci jëmm yoo xam ne xel yi nit ñooña diñ leen fàtte mukk nee nañ waxuñ nee nañ duñ leen fàtte mukk ba ba saa taxaw bis yooyu gëmm yooyu ak béréb yooyu day sax ci xeli nit ñi sax ci seen xol ñu di leen fàttaliku ba faw bépp lépp xeet kon am na ay way gën ñu bokk ci ñoom am ay tànneef yu bokk ci ñu réew ma sagal ko màggal ko di gànjaru réew ma sëñ Tuubaa nag di yàlla di taal bu suñu borom tabaraka wa taalal boppam nam ci mu yëkkatiku di jëmbax li ba faw te du kiim du saxaat bokk ci jëmm yi nga xam ne taarix du leen fàtte daf leen di gën a màggal di leen gën a yëkkati ba keroog bis pénc ba feeg jant bi ak weer wee ngi fi rek ñu di ko fàttali ko muy bindeef moo xam ne léppam dund bu tooy la léppam di ak waare ci képp kuy waaru mu bokk ci tegtali dëggal yi bokk ci tegtali wéral yi xam ne ak dogoom ak muñam rek doy na wilaaya mu doon dëmm joo xam ne yàlla daf koo seetal dell akuk dogu akuk mat akuk wóolu nit la koo xam ne bu jógee jëm te la mu jëm dara mënu koo delloo gannaaw du deng deng mukk du mukk day àgg fa mu jëm du geesu jëm ci lenn lii nit ku daan xiise boppam nit ku xiis ci boppam la borom fit wu dëgër borom xel mu lëng di borom ngor gu mat sëkk borom ci ju kawe boole ko xam-xam bu bari ak tabe bu jaaxal ñëpp di nit jëmm joo xam ne du mer mukk lu dul ngir naqar yàlla ñuy nit ku baax bëgg baaxam jéggi dayoo bu rafet yéene la li mu yéene boppam la yéene bépp jullit muy jéggal na doomu aadama yëpp ba jéggal ay noonam du fayantoo mukk di nit koo xam ne kii woyofal boppam la li yàlla def ci moom lépp jo ba mu jommal nit ñëpp taxul amul dara lu mu naw ci boppam ci naju qadaa il xaaji bi tër ngir jàngal jullit ñi teggin dafa wax ci bopp bi ne qaala ibnu cheikhihi allazi la yahmadu fi nafsihi siwatmihi muhammadu mu ni doomu sëriñam bi nga xam ne santul ci boppam lu dul turam li mu tudd Muhammad nga xam ne kon jaloore ñi ko yàlla jox kaawte fii ko yàlla def ni mu nekkee di xettali jàll ci kaw suuf loolu lépp amu ci lu mu gis boromam rek la gis nee nawul ci loolu lépp nawul bopp nawul ci boppam dara dugul ci mu tudd muy mu joo xam ne ak takkoongu ci moom ak dogu du óoréen du mukk du kaf mukk bu ne bëret jëm ci la ko tax a day dox ànd ak yarute ak teggin du gis ci mukk ay loxoom ngir weg yàlla boromam ak ngir ragal ko bu dee bëri itam ci boromam day jublu du waaj du fexee jóg lay wane gannaaw ñu mu toogaloon du nit koo xam ne di jéem a am mukk la nëbb ndax ay teggin yu bari day njuumte nit ñëpp ak seeni rëcc rëcc ngir suturaam su bari du tudd nit mukk fu mu nekkul lu dul ngir bëgg a wax ci moom la gën a rafet kelam ko xamal mu dëgg dëgg koo xam ne yàlla na fa nit ñi wakiilu ci yàlla wakiilu goo xam ne wees na fa nit ñi xamoon wakiilu ragal boroomam ragal goo xam ne wees na fa nit xamoon ragal goo na dayo ku muñ ñu ne ko sa sabru sa faax sa sabran naasi xatta samawta bihi ila ala al maqaali sëg muñ tee dina kaw muñu bindeef yëpp ba suñu borom yëkkati la ci taw bu muñ googu teg la ca maqaama ba gën a kawe ci maqaama yi mu di ko sopp boromam ba xamewul suukar ak kaani mu di ko namm boromam fu mu toll ba mu dox diggante ak lépp soo mu ne jariñ ci dénd bi fekkoon ne nit ñi amee seeni aada ak seeni baax yoo xam ne sax na ci seeni xel sax ci seeni xol nekk ci seeni cër ba mënuñu ko bàyyi waaye moom mu nekk nit koo xam ne dëlee taxaw ba nga xam ne ña fa taxaw ñàkk a mën a dem fu ko sudat moo leen fa bàyyi mënu faa taxaw moom mu di koo xam ne tëlee doyloo la nga xam ne ñi ko doyloo dañoo xamul ne dara gën na ko wala la ko gën mënuñ àgg moom mënu faa taxaw mënu koo doyloo mu dal di tàmbalee wuuteeg lii ci loolu mu bokk ci xeet doomu aadama yoo xam ne ay jant lañu ñuy leeral lëndëmi xol yi di saafara yooyu ràggi xel yi di ay waame ñeel maranu ragal yàlla di ndox mu sedd mu méngat ngir magu maru képp ku bëgg yàlla nekkul nit koo xam ne suñu borom daf koo xaroo loolu lépp ngir yërëm ku mu yërëm jaam yi mu nekk ni mu waxee boppam jaaral ba ci xaajaban lil kawn mu di ko dëkkaaleeg yàlla kéemaanu bindee fii ñëw na fi ba dem bàyyi fi lenn loo xam ne bàyyi fi kenn loo xam ne mën nga jóg def ko lenn lu def lu ñu war a def bàyyiwu ko fi mu di jëm joo xam ne ku ñëw gannaawam te di nit ku mat ku rëy da naan jàll na fii la jaaroon lii la fi bàyyi lii de moo ko fi def ak koo mën a doon wax boo fi ñëwee rek ba ba saa taxaw not na xol yi not ruu yi dàkku seytaane muy jëmm joo xam ne suñu def na ci moom secret ci secret yàlla yi xam ne day xëcc xol yi way jaxe xam ne boo ko ne jàkk am lu jóge ci yow am lu dugg ci yow boo ko ne ko bëgg àdduna dañ ci yow ñi yàlla dañ ci yow sàggan dañ ci yow bëgg dara ji jëm ci dañ ci yow nga daal di xemmem yàlla namm yàlla bëgg yàlla fexe fexe jaar ci yoonu jub raxba ak raxba ñëpp a àndandoo jëm ci yow ci sababu gisam da ngay di am cofeel ndagam xol bu texe xolub aji texe nga amee cofeel boo xam ne da koy namm ba fottolu bëggaat koo gis te waxtu woo ko gisee doo doy ne ci moom mukk jëmm yàlla jox fit ak fayda daf naan déedéet fu nga xamee ne kenn ñu ne wala gànn tudul moom li mu fóot ci ay xol li mu dindi ci réer li mu dindi ci rëy li mu génne doomu aadama ci yoonu texee di jaarale ko ci yoonu àjjana kenn xamul nu mu mu ne day bi ci jamono ji ñëwee bi ci béréb ji ñëwee di ci béréb di ci tukki lenn loo xam ne mën naa tax ñu xalaatoon ne lii moo war a mën a tax mu mel nii wala bu dikkee nii ci béréb bii ci jamono bii war ngaa mel nii déedéet ak xariyaam dong moo tax mu fekk fu dara ñëw mu def ko lépp fekk lu dul def ko lu nekk fekk lu amul njëriñ mu def ci njëriñ loo xam ne dana doy képp ku ko gis ak jeexitalam ci nit ñi foo ko lamb daj ko fa foo xool gis ko ku wal ba di ko loo xam ne lii moo ko waral wala lii moo ko tax a mel nii mu mel ba bëri yow ni daj di jóg ci làmm yi bu aadama yi xëyee tudd ko fanweeri junni yi yoon ba fekk aji texe moom lay waxtaan dafa ko tax kon ba ci na loo xam ne bu ko woon gannaaw nag ndax xaw ma waxtaane bu mooy waxtaane suñu borom tabaraka wa taala wa inda dikri salihina tanzilu rahma dañu doon waxtaane imam ahmad ibnu hanbal ci kanamu ay ulamaaw yu jéggi dayo kon yàgg am ci kenn koo xam ne dafa ne yéen a ngi teg ahmadu ambal fu mu àggul de comme ko waxee ulamaaw yi ci des ne ko yow day daanu la jël boo xam ne doo jóge ci mukk ahmadu ibnu ambal de waxtaane ko mooy waxtaane yàlla noonu sëñ Touba waxtaane ko mooy waxtaan yàlla wa inda dikri saalihiina tanzilu rahmatu la ulama yi wax dafa ñëw te ñëw ludul ngir xettali bindee bi ñëw ludul ngir leeral lëndëm gu fi nekk ñëw ludul ngir dindi réer ñëw ludul ngir dindi texee bi teg ci ak texe ci yërmande suñu borom ñu nit koo xam ne dafa xam la mu nekk xam fa mu jóge xam la fa mu jëm xam la ko tax a jóg itam ñëpp boot leen fa mu jëm leer ko lam fa am mu di wa daa'iyan ila llahi bi idnihi wa siraajan muniira suñu borom tabaraka wa taala waxoon yonent bi ndax ñiy woote jëme ci yàlla bari nañu lu di boroomi xam-xam yu xami sañ-sañ xami man-man waaye nag ni mu ko waxee rek li gën a jafe mooy wa daayin ilallahi bi isnihi da nga xam ne yàlla ci boppam moo la moo la seet ba nga doy ko mu ne la wooteel te moom dafa ne suñu borom dafa ne ko bii ci man roohi bindee fii mu gàlloo parce que añal yowmal qiyaam du caa génn dafa ñeme bor dafa abuk fay te fa mu fay daf lay fay ba wet la ndax nee na waalaani al abraaru fi uxraaya man xaada lii binan biha xiraaya way baax ñi ñi yàlla baaxal te ñuy cëri suñu borom man lañu ñu méngool yowmal xiyaam te bu keroogee sama bernde gi ma sama borom di berndeel amulub àpp du jeex mukk kon lu dul jeex mukk ku ne xaj na ca Cheikh Ahmadou Bamba dafay nit koo xam ne li ñu tuddee a Cheikhul Kaamil ci moom la dala yam ci moom képp koo xam ne kii wéeru ci moom bu mu seetee gaa xam ne moo leen yaral boppam teg leen yoon leen melal kenn ku ci nekk foo dem yaay sangub ñi fa nekk dafa leen digal muy seen i jiiraay ba ñu jàkkaarloo ba yow ma ne doo kulla unaasin kulla unaasin dana nu woo bépp kuréelu doomu aadama seen njiit la leen jiite woon ci àdduna nekk seen kanam jiite leen daf lay ñoril ba nga jàkkaarloo juróomi tolluwaay nga xam ne jaam bu ne da nga fa jaar te benn tolluwaay bu ci nekk boo fa tolloo da nga fàtte lu suñ borom bindoon ba da nga defee ne yow dong la suñ borom bindoon ndax njàqare ndax tiis ndax jaaxle ndax métit ndax jaaxle bu métti rek boobale ak tolluwaay yooyu yële la lay wan ba nga jàll mu wan nam lay wéttilee xam ne kon moom wéewul njort lu rafet wakkiilu ci yaatu yërmande yàlla dafa am lu bir lu borom yi këti teg ci loxoom mu seet ko ba xam ne doy na ñëpp mu ne zimaamul wara asri la dallahi fi yadi wa maa rumtuhu min malikin qaala bi kenn ku ci nekk daf lay leeralal ne ñaq bu gor kenn du ko lekk ci neen lépp jaam boo xam ne bii sa digganteeg moom lu toll ne bën bën bu sa dox na ca ci xàq moo xam dafa yëkkati jox la loo moomul yeyoo woo addiye mu yëkkati addiye jox la ko bu keroog yomal xiyaamee bala ngaa jéggi siraat xaq joojee dañ ko dindi ci yow bu fekkee ne mën a loo ko dara dana la leeralal ne la xaraam na lekk ci turu diine mooy am diine di feeñal diine di ko wane bay dundee diine nit ñi doy loola ngir diine ji nga am ñu teg la foo nekkul ñu yëkkati seen ñaq jox la wala seen alal jox la bu keroogee da ko delloo bu fekkee ne matuloo ko nga xam ne nag dafa woote ci ndigalal yàlla mooy ki nga xam ne moo lool loolu mooy tax Cheikh Samba Diar am na addiye def ni moom di ko jagoo ku ko deful boo ko dogoo bàyyil mu àtte aw layam kon nag yàlla xam maandoom gi ak nu muy àttee jaam ñi ëllëg ak ni di ware boroomam lay jëkk def ci sa xam-xam ba mu leer la ñu ngay digaalee lépp loo digaalee ñoom lu la leer lay doon nga xalaat bis boobu nga xam ne yow ma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma ardaat wa tadau kullu zaati hamlin hamlaha wa tara naas sukaara umam bi sukaara boobu nga xam ne bu keroogee bu doom aadama nee tëccët ci mbir ma tiitaange dañ leen tugg xam ne ku doon jaboot ji nampal sa doom sax da ko sànni képp ku ëmboon da nga dal di wasin ci saa si ndax tiitaan ngay jànloog doomu aadama yi ñu mel ne màndi sàngara ñu mel ne naan bu màndi te dara lu dul tiit ak jaaxle jàq ak mbugal mu metti bu karaawgee yi wal si basirunahum yawaddu mujrim raytadi min azabi misin bi bani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa mansilati jameen suñuyen jii bu suñu borom wanee jaam yi la fa nekk bañ ne di jàkk ba gis jëmm joo xam ne daf naan siiw ñu bàyyi woon ko te jàpp doomam dugal ko ci mbugal ma jàpp rakkam dugal ko ci mbugal ma jàpp magam ak soxnaam dugal ko ci mbugal moom nga gis koo xam ne dafa naan siiw loolu le loolu moo tax Sëriñ Tuuba ngir bëgg jaam ñi bañ a waru mu ne wax tabir rijaala qabla suhba wala tusaaxib xumran wala rahbat bala ngay ànd ak kenn ci góor yàlla yi na nga ko nattu bul mukk ba ànd ak jëmm xam ne lu mu am am xel dof la fa yàlla wala borom xemmem téef la ci lenn ci mbiri adduna li gën a rëy li gën a tiitle li gën a metti li gën a jaaxal nit ci fu doomu aadama di jaar mooy diggante bi muy xar-xarle diggante diggante boobu seytaane day taxaw dem ku amul lu la fa taxaw lu baax ka àgg ca daayoo ba gën a kawee ci daje yi rek ba gën a sori mooy ki fa mën a xeetlee loo tax cheikh sëriñ bi ne wa kullu man lam yata addab zamana ala yaday cheikhin fa yalqal mihana li anna man adima cheikhan mursida fa cheikhuhu cheytaanu xaytu qasada dana képp koo xam ne joxe woo sa bopp sukk ci kanam sëriñ boo xam ne mat na ko cheikhan mursidan la cheytaan rek ay jàpp sam nas di la jaarale fa ko neex sëriñ bi nag mu ñëwee te fekk aada yooyu ma waxoon ne moo sax ci cëri nit ñi ak ci seen xol ak ci seen xel te la ñu doyloo moom doyloowu ko fa ñu yem mu ñu faa yem moo tax mu xotti yoon wu kenn mësula jaar mu jaar ca jaarale ca ñoñam mu sàkki daaraam daara yi mu sàkk jëmm yam fa jiital ñuy jëmm yoo xam ne kenn ku nekk buñ la nattee ca àndaar ja da ngay koy fees dell kenn ku nekk ci taalibe yooyu nga xam ne ñoo tutoon ci moom te xam ko takkoo ko kenn ku ci nekk ab téere nga kenn ku ci nekk cheikhul murabbi nga kenn ku ci nekk royuwaay nga kenn ku ci nekk ab sang nga mu bind ci kayit lépp lu ñu war a bind ci kayit lépp lu doomu aadama war a xam sëriñ bi bind na ko bàyyi tomb bi te suuf yi mu daan tomb rëdd yi mu daan rëdd di màndal nit ñi ci géej gi yoo xam ne xam-xam yu jóge ci boromam rekk la dugg ci moom te teggiwul jaarul feneen itteem ji nga xam ne jenn rek la woon moo di xettali jaam ñi nga xam ne fu mu toll muy yéene ji mu yéene doomu aadama yëpp mucc xeetu Muhammad lépp mucc mu def ko muy itteem guddeeg bëccëg nga xam ne la muy ñuy enregistré képp koo xam ne ñoo ngi lay. te dëkku ca la nga nekk la muy njëkk a noccee ci sa xol moo di mbañal dootoo bañ benn jëmm sopp daraja la cay teg ni ko ci yow. li ci topp àdduna di ci rëy yooyu bu dañee ci xol borom yomba defar dafa lay jox xam-xam bu bari jox lay teggin jàngal la na ñuy toraxloo jàngal la na ñuy jaamoo yàlla ak na ngay jànge alquran jox la lewet jox la ragal yàlla bu tar jàngal la segu segu ci jëflanteeg nit ñuy segu sa digganteeg sa borom segu ci sa bopp xam ne boo dee dox jàngal na la na ngay doxe booy toog jàngal na la na ngay toogee jàngal la na ngay taxawe booy liggéey mu jàngal na ngay liggéeyee jàngal la na ngay waxe jàngal na taalibe yëpp ay teggin ci dox ak ci wax ak ci jëf boo seetloo seen wax seen i dana feeñ ci wet gu nekk da ngay gis borom xam-xam boo xam ne bokkul ci yoon bi buy waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala muy waxtaane keneen ku baax nga dégg mu wax waxin woo xam ne yow mi xam yar boobu sa naaw day rëcc soxna nga xam xamuloo jàpp ba mu ganee àdduna ngay wax doone ba mu juddoo ba mu génnee àdduna wala ba mu wujjee boromam ngay wax waxinu teg yi yëpp nga xam ne sax ci biir communauté bi ba nga xam ne kenn koo bu doxee nga ràññee ko bu waxee nga ràññee ko bu jëfee nga ràññee ko bu jëf leen teeg yow jàngal la ci biir jëf leen te noonu la sëñ Tuubaa di defaree nit tëral na téere boo xam ne Nahju Qadaa'il Haaji képp ku seet lam ca wax da bokk ci ñi gën a yaru ci àdduna te xam la ne ca tàmbali ba ay teggiin mooy ngën ji ndàmb mooy ngën ji magasin mooy ngën ji trésor ci kaw suuf wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru ma bi bihi zu izzi lépp lu doomu aadama am ba tedd teggi na ca gën xam le na ne teggin mooy leeral xol mooy jegeel yàlla mooy jegeel mbindeef yi ñàkki teggin boo ëppoon xam-xam ci nit ñi dangay ngay sori yàlla sori yonent bi sori àjjana jegi safara xam ne teggin mooy fekk ku amul woon juddu mu yëkkati la bëgg a gën nit ñi ñàkk koy mooy fekk ku gënoon nit ñi ci juddu mu suufeel la ba ñëpp yab la nee na wa awwidi lisaana qawla alxayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri li qawli sayidil wara man kaana salla alayhi rabbuhu idman na nga tàmmal sa lamiñ wi wax ju rafet suñu borom dana la cëral cër bu mag ci lamiñ wi te dana la sagal bépp lor kon ab taalibi buy wax wax ji gën a tegginu gën a rafet ci wax yi lay wax ndax sëñ Tuubaa jàngal naka la tere wax ju ñaaw muy saaga muy tudd cër bu rafet muy tudd loo xam ne lii ànd la ci teggin wala loo xam ne day mer loo nit mooy ma kullu ma xabu xasil kalaami noonu la ko teree teree ne kon saaga nga xam ne xale boo mu nekk ci mbedd yi di saaga saaga yu ñor di ko bàkkoo wane ne ak am fulla ak ñàkk a ragal kenn dafa yàqu te kenn defaru ko waaye tëralal nañ ko yoon woo xam ne bu ca jaaroon dana defaru kon mboolem luy xeeti mag suñ ko ci kayit rëdd na ko tomb ko jëfe na ko it ñu gis ndax moom jëmmam rek jànnoog moom ab yar lay jox nit kon mat ci jëf mat ci xel mat ci xalaat mooy li nga xam ne moom la am njàngleem di di leer kon tarbiyatul kaamila day boole yooyu melo yëpp nga xam ne mooy melay saahir des na melay yi nga xam ne daan ci dugg mu di dëggu ca la nga nekk moo di sopp yàlla ak yonent bi sopp gu wér bi sopp gu ral naa koy nekk li mu wax ne gi ngeen ma bëgg moo leen di jëriñ waaye man sama bëgg gii ma leen bëgg nan du leen jëriñ nga kon buum gi yeew taalibe bi ci sëriñ bi moo di cofeel ndax bi ne tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin la ca teg aw hadiyaati ne kon ak wóolu boo xam ne bu adduna bépp bàyyi woon la nga tax sag wóolu wàññi dara bu adduna bépp toppoon sa gannaaw fekk si la ne la li nga amee fi gën du tax nga dolli ko dara loolu taruk aju ci sëñ bi moo la koy may ak yéene ji rafet ndax lépp lu am lépp ci jëf ji mu doon yéene rek ay àndaar ji ñu koy natte yéene tax mu mat yéenay tax mu sakkan yéenay tax mu jëriñ kon topp ndigal ak wattandi ko tere mooy rasmaalu murid Sëñ Tuubaa xam le ne li ñu tudde al usla ngëneer ak rafet rafet yi ci nekk ndax sëriñ ñetti sëriñ bi ñu ko waxee misaal na ko bataay yi cheikhu taalim ku xam na fa mu yem waaye cheikhu tarbiya ak cheikhu tarqiya yeneen niveau yeneen niveau la placé yoo xam ne yu rawanteeg liñ njëkkoon a wax la loolu moo tax sëñ bi ci njaal benn taalibe yi daf leen daan ber ñu bañ a jaxasoog waa adduna waa adduna yi nga xam ne bokkuñu ci ñoom ndax jaxasoo gi day waral seenub dox yéex seenub dem yéex waxtu wu ñu wéetee nga xam ne ñoom dong na kenn raxu leen lu dugg du génn lan lañ jàpp du ñu ko bàyyi mukk kon bari dellu ci sa boroom bari tuub ak bari jéggalu mooy alali taalibe loolu aw xeet la ci shahada li ñu tuddee shahada ndax shahid bi suñu borom tabaraka wa taala ku mu ci siddiqoon yi shuhadaa yi nga xam ne la mu nekk dëggu na ci dëgg xam ne gisatul daray àdduna mooy taalibe taalibe moomul dara dara moomu ko lu bi moomul dara mooy li nekk ci loxoom sëriñ Ba fa bàyyi waxtu ko ne def ci lii mu dal koy def ci saasi loolu moo tax waxtu wuy dee alal bi ko xëcc jëmee ci àdduna ndax saxul ci xolam ndax sëriñ bee ko gën a dëgër ci xolam ndax alal day xëcc jëmee ci àdduna te bokk nañ kon liy metti sukuraat xam nga ne boo nekkee fii ci kër ñu bëgg la faa génne yóbbu feneen te dootoo fa dellu si mukk la nga am te wàcc ko fa ngay xalaat kon ki fa wàcc fukki junni ki fa wàcc junnee ko gën a woyof moo ko gën a mën a dem kooku it ki fi wàcc benn dërëm ki fa wàcc dara nag moo gën a ndax du xalaat du geesu gannaawam def dara naka noonu la ruuxu taalib bi nga xam ne joxe na boppam joxe léppam inna laa astara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul jannata waxtu boo xam ne toll na ci sukuraat du yëg aw siis du yëg ak diis du yëg dara la ko dootu geesu jëm ci àdduna day mel ne ku jógee ci béréb yi gën a naqari jëm ci béréb ba gën a neex di ko séen di séen la nga fa gën a bëgg na ngay yàkkamtee demee noonu la mel ci moom kon ak taalibi bu dëggu aw xeet la ci shahada aw xeet leen ci siddiqiya siddiqiya mooy martaba ñaareel bi bu yonent bi ñëwee ñi ci topp siddiqiyatu suxra siddiqiyatul kubra loolu lépp xam-xam la boo xam ne aw melo la woo xam ne nañ koy ame ci ñaari loxo yi sëriñ bi mat sëriñ jaarale la ca yoonoo lay doon waaye doo ko jàng ci téere yi moo tax sëriñ Tuubaa ne xafistuma siina anit dafaatiri yi fala takun an xidmati bi faatiri wattu naa xam-xam ba nga xam ne tert na ba kenn du ko bind ci këyit bul tàggal mukk ci ñàkk bari ñàkk maa liggéeyal ba ma di liggéeyal bul tàyyi mukk ndax mooy sa njëriñ ci ak ëllëg xeetu xam liinam xeetu defar yinam muy defar doomu aadama léem na xel ma nga nekk wara atawlil xijaa naaw gannaaw yamuwaayu xel la nekk ay melo yu boppam day na ci yar ci dindi lépp luy ayib ci nit li ñu tuddee taxliya ak taxliya taxliya mooy fóot xolu jaam bi ba wépp melo wuy yéexal ab doxam jëm ci yàlla wala wuy waral ëllëg mu am luñ koy laaj dañ ci xol bi taxliya mooy takkaayal ko ci takkaay yi gën a rafet mooy melo yi gën a rafet kon taxliya ak taxliya jaam bi nga xam ne dafa jàng ba am xam-xam am xelam leer xol fees ngëmam mu fas yéenee bàyyi adduna bàyyi lépp jublu ci yàlla kooku nga xam ne mooy moo àgg ci yemukaayu borom xam-xam foofa lépp murid tàmbalee mooy bidaayatul faqiri nihaayatul faqiri borom xam-xam bi àgg foofu foofu mu toll fa la murid bi joxe boppam tàmbalee Sëñ Tuubaa tàmbali defaram ca na ma yàlla baal wax ba nga xam ne ay atam ci saahir néew na. ko wo mu way ko ndax waye gën a yomb a mokkal yokk ko mottali ko gën koo leeral ngir dimbali bindeef yi muy jéego bu njëkk xam ne kon ki daan jàng téere yi mu daan jàng du ko mën a wattu ndax wesar la yow nga xam ne dañ la koo woyal ba nga xam ne dañ koy dal di gaaw mokkal ndimbal la la manqué woon ci téere ba it mu mottali ko gën koo leeral ndimbal lu gën a màgg ma ne loolu mooy ba mu tolloo ci at yi nga xam ne mooy at yu njëkk a njëkk ci doomu aadama bu ñëwee ci àdduna fa muy toll foofa la tàmbalee kon dimbalee jàmm ñi mu di téere yi gën a sell ci téere yi ba mu nekkee ci loolu di xamal bindee fii yoonu jub di leen xettali di fët seeni xol ci nanga xam ne noonu la ko sëriñ bu xam yàlla war a defe mu dem ba suñu borom ko foofu xamal ko ne ko yar nga ñoo xam ne ñoo war a toll foofu yow rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi ñi topp ci yow na nga leen yar ak li ahlu tasawuf di wax simma waaye bu leen yar xam jàngale xam-xam fekk na tàmbale yaram boobu nga xam ne moom la daan yare ba tey li ma waxoon ne ñàkk a doyloo gi mu ñàkk a doyloo la nit ñi doyloo ña tëlee yem nga mu tëlee yem fa ñi yem ndax ñàkk ko mën a weesu bi mu dikkee itam ca lañ xamoon def leen caa jàngalaat dellu leen xamal nañ cay jëriñoo mu dal di fexe ba nga xam ne taalibe bi day saf sàpp lislaam saf sàpp yàlla xëy xun nu boroomam lépp mu di tegtale boroomam du nangu nga jëf jënn jëf te tàmbali woo ci turu yàlla loolu bi mu koy xamle lu toog rek ne la looy defati tàmbaleel yàlla noo ko ne day nekk occasion wala bu gisul occasion mu créé ko mu mu sàkk occasion mooy bi aw keroog bi aw sàkket daanoo te ñu war a jubbanti sàkket bi mu woo jëm ne ko gasal ma xer bii mu tàmbalee gas mu ne ko bàyyil tegal ngas kali ci mu teg mu woo keneen kooku ñëw tàmbalee mu ne ko tegal ci ka ñëw ne bismillahi mu ne ko gasal xam nga ne loolu day daal di sax ci xol ku ko fekke woon dootu la ci mukk looy defat da nga ne bismillah ndax lépp loo tàmbalee tàmbalee ko bismillah seytaane moom wàllam jeex na ca day daal di wàññi ko naka noonu ni mu xamee nit ñi sell ci ak musiba mi nekk ci jëw ak xàq ji ak réglé ga yomal xiyaam ni mu tiise ci taxawaay bu metti ba ñi mu masoon ak bett ci gannaaw sàkket ñuy jëw ba mu leen dàqee dafa woote ñu gas kan ma gën a xóot dal ton ni suuf sañu toogoon lépp suul ko teg fa seneen euh, tasaare fa seneen suuf jàngalu fa nangami kaamil ngir ñu xam ni jëw màggi ngir ñu ragal jëw mu di kon jàngale moo xam ni dootu dañ mukk day sax ci xol yi ñu ko jaar naka noonu la jëfe woon ci gànnaar ñetti xew-xew yooyu ñu daan nettali ci ana lu leen gindi ba xamal leen ci dañu ne ko safara woon taaloon te mu ne nga xam képp ku ne safara lay gindi naka noonu si ndax ba doon nuróog bu ko wata ñu rey ko ba noppi mu ne te mu ne leen ndaxam lépp loo bëggul ñu jaawale moom bu mu jeex yu mel noonu nga xam ne moo ko njëkk a xamlee naka noonu ci xam ne aada woon nañ ko te fekk na la ko jiitu mu daan tere ñaari jigéen tax ñu joxante loxo rawatina jigéen ak góor ñu dem ba doomu aadama yi sàggan sàggante goo xam ne aaday waa sow yi dugg na leen ba jigéen ak góor di joxante loxo muy ñaaw ñaaw bi gën a ñaaw nga xam ne xel mësu ko xalaat ba léegi xam nañ ne góor ji fekk jigéen ji toog mu tàllal loxoom jox ko kenn yeesu ko jigéen ji fekk itam góor gu toog mu njëkk a tàllal loxoom jox ko kenn yeesu ko fekk nag aada yi képp koo xam ne bàyyi na yoonu yàlla wuuteeg aada ja ku ko def am nga yoon boo xam ne mënees ko xiyaas am na téere bu Ibnu Taymiya bind tudd ko iqtidaa'u siraatal mustaqiim muxaalafatu ashaabil jahiim daf caa indi ci lenn rek ci loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko daan jëf ba mu gisee ne yahuud yaa ngi koy jëfee mu bàyyilu ko mu bàyyi ko bàyyilu ko sëñ Tuubaa nag gis nañ ni mu jëflanteeg doomu aadama yi gis nañ li mu fi bàyyi ak li mu def fan la leen jëmee xam leen di ma xam nañ ko waaye nag nan la leen fa jëmee moo wuuteeg ni nit ñi daan jëmee ñi ko jiitu nit ñi ñu daan wammat jëmee leen ci baax xam leen jëmee bëgg leen fa àggale mooy àgg ci yàlla suñu borom tabaraka wa taala te loolu mooy ixlaas koo xam ne mat na ixlaas nga xam ne moo juddoo ci xamuk aarifoona billaahi xam nga ñu xam seen borom ne nit ki léppam yàlla la ak yëgoom ak dalam pas-pasam ay waxam ay jëfam ay biram biir ak biti loolu la nekk nekk xam na ne kenn mënu koo joxe nit ci jàngal ko ndax aji jàngale daf lay xamal rek li ci téere bi bàyyi laak sa bopp yow nag yaa ngoog bànneexa ngoog bakkana ngoog adduna ngoog seytaane ngoog doole de ana koy jaar ba dem borom aji jàngale ji moom bu la xamalee rek ne la lii xaraam na lii dagan na tàggoo naag yow mu def seexu tarqiya ak seexu tarbiya ñooñu ñooy jàpp ci sa loxo bu ñu matee la ñu doon da nga àgg nga xam ne boo fa àggee nga waxtaan nañ ko ay yoon ndax sëñ bi bind ne ko charte seexu taalim charte seexu ak charte seexu tarqiya ñooñu nga xam ne ñoo lay xamal sa ay bi bopp ba sa ayib bopp doy la soxla ba doo soxla woo ayib yi keneen doo gis ayib yi keneen nga fexe ba laab ci sa ayib yooyu la sëñ Tuubaa nag bi nga xamee ne wane na yoon wi nga xam ne ci la war a jaar ak képp ko ci la war a jaarale képp koo topp ñu ko toppoon mu jaar liñ ci yoon wi nga xam ne moo leen di setal ci ayib yooyu rek at bi ñuy wax assasine at mi nga xam ne Mamour Anta Sali bàyyi ko na fi ba ca diwén nga xam ne mooy at miñ ko ne rabbi asxaabaka bil himmati ci at moomu la jógee Mbàkke Bawal Mbàkke Kajoor dem Mbàkke yi war ko wuy at yooyu la siiw ban waxtu jot une heure des na loon. ñaar moom fi ne ñaar fi ne ah, kon kat waaw ñaar at yooyu nga xam ne mooy ñeenti at yu njëkk ci bi mu jógee Mbàkke Kajoor ndax mu ngi wax ci la suñu boroom dal siiwal turam toppaloo ko képp koo xam ne ku war a texe nga ci la wëndeelu ci réew yi ci la ziyaare béréb yi nemmi ko ci la ziyaare gaa ñu baax ñi nga xam ne yaakaar ne woon na leen li mu bëgg lépp ci la wër ba dem gànnaar ziare waa kër Cheikh Sidiya Sidiyel Babu mag ma ci la ziare Cheikh Sidiyel Kabir dërëbam ndax muy wax hmm, yéen a koy dégg ci jamono ay nag la ñuy dégg man defe naa ne joxewul de joxewul de joxewul maam mu ngi ñëw ndax day déglu kon <coughs> diggante boobu ma ci la doon wëndeelu ci réew yi xalaat dégg ngeen ñu ne jàpp na wirtul qaadir liggéey ko juróom-ñaari at jàpp wirtu chazili yi liggéey ko juróom-ñaari at jàpp wirtu tijaan liggéey ko juróom-ñaari at ndigal li bopp moom ci boppam dafa wax ne dama doon làmbatu yoon wi kuy làmbatu nag da laaj ko xam da nga laaj ko xamul suñu borom xamal ko ne ko gannaaw gi ne ko ñi mu daan dajal ñëpp amuñu al ismu xaas dëgg ci liñ ko doon jox waaye diggante boobu suñu borom xam ne na ko ci ba ñu war a texe ñëpp wuyu si nañu ko ñii doomu aadama ngir xam-xamam bu bari ñu bëgg seenu réer dañ ñi nga xam ne punt xettaliku waaye la ñëw di xettaliku fi ñii alal ju bari ñi nga xam ne soxliwu ci dara te daf koy joxe mook ay xeer rek lay malee mooy leen fa indi yoonu këram mel na yoonu marché yoo xam ne adduna bépp bàpp jëm si ci moom waaye képp ku ñëw lu gën la nga yaakaaroon ba tax faa ñëw ngay gis ba tax la faa ñëw ngay gis waaye loolu lépp teewul muy wattandikoo doomu adama yi di leen wattandiku loo li nga xam ne moo leen di lor ak li nga xam ne mooy dox seen diggante seen borom mu daan wattandiku booli adduna yi bindoon ne man yusharikum huna fi izzihim yakun sharikahum xadan fi zullihim mu xamal ñu topp si ñoom ne leen jaxasoo ngeen di jaxasee booli adduna yi képp koo xam ne bokk nga ak ñoom ci seen teraanga ji bu ëllëgee kat da bokk ak ñoom seen toroxte loolu fekk na amoon na ay mbokkam. yoo xam ne jaxasoo woon nañoo ca day jaxasoo bu metti te boobu moom si boppam itam doom nañ ko xëcc jëm ko jëmee ci loolu le ci jamono yooyu le la leen moom suñu borom sàkk ko ngir loolu te na malaayika suñu borom yi di ko xool muy jéggi ay jéegoom jëm ci buurub àdduna bi nga xamee ne bi nga ko waxee bi si waajuram jógee ne nga dem ndokkeeli Lat Joor nga dem jaale ji Lat Joor mu teg la fa ko sa waajur féete won leen ne leen duggul ci loolu dara te def ci muslu yàlla booba da leen dal xam ne xaat ñoom kat gis nañ ne kii kon daf leen a bañ ndax li ñu nekk sikkal na ko lool ba mu bax seexlu ko gannaaw bi nga xamee ni itam buur ba ci boppam xew-xew boobu xewoon ci alal ji ñu jëlee woon ci Samba Sadio xanaa dégg ngeen ko ba tey yi nam ca jëfee ak taalibe bi ba jébbalu si te amee ci alal jooju te mu digal ko mu teqali ko ak alal jooju itam yooyu yëpp indi ay xew-xew yi nekk digganteem ak ceddo yi ñi nga xam ne itam ñooy ay mbokkam itam gën gi mu leen gën raw gi mu leen raw ba lépp lu jóg ci lu baax jëm si ci moom teggi leen ñoom mu xaw leen a metti ñu daal gis ne léegi doomu soxna yi sàkk nañu aw dig seen digganteeg moom ceddo yi sàkk nañu dig seen digganteeg moom te tubaab yi itam ñoom it ñu ngi tàmbalee ñaaw njort ci moom ndax murid yi yëngu gi ñuy yëngu xew-xew yi ñuy feeñal fii tël na nguur gi kon desatul kenn koo xam ne kii mën na ne kii mën naa jàmmoo moom ku dul taalibe yi mu dal di nag moom joyal na mbërëm ci boromam rek wa ufawwidu amri ila allah inna allah basirun bil ibadi diggante boobu itam taalibe yi ñoom seen bopp seen dogu ga ak seen takku ga ak seen way ga seen yëngu yooyu ñu doon yëngu dafa gën a dolliku gannaaw dafa gën a dolliku rek xeex gi ñuy xeex ak ñi leen di tere fekk sëñ Touba ci bépp dugg ak bépp génn waay ñi nga xam ne ay mëj la ci ñoom yéeg ci kaw yi garab ba ca càttaxtan la di juutal seen bopp buñ daanoo faxas jóg ñii taal seen ba mu yaañ ñu dugg ca biir ñii di baxal ay satala ba mu bax ñi ko naan seen xaside yi jolli fuñ toll di tagg yonent bi di gërëm sëñ Tuubaa loolu lépp naqari ceddo yi naqari doomi soxna yi ñu tàmbali di leen xiise di leen métital di leen soxare di leen xatal génne bi mel na xay waxtu wu nekk fu nekk ñu di leen fang fangal di leen dàq di leen génn seeni kër di leen dóor waaye loolu lépp teewul waxtu wu ñëwee rek moom moom de waaye coow li bare na de dimbale leen lu ngir yàlla déglu wax ko si rajo mbooloo mi déglu leen mbooloo mi dimbale leen ñu ngeen déglu dimbali leen ñu ngeen déglu li leen fi indi ak dóor yi ak coow li ak xatal bi ñu leen di xatal di nangu seeni soxna di nangu seeni alal di leen tumuraankeel yu ñépp gën a dolli seenu dogu gën a dolli seenu ngëm fuñ toll sëñ bi di gën a dëgëral seeni itte di leen gën a leeral di gën a leeral seeni xol di leen xamal ne saaba yi ngeen war a roy ñax ñooy seeni bàyyi ci lislaam saaba yi rey nañ leen mugal nañ leen nangu nañ seeni alal def nañ lépp waaye lépp mosu la tax ñu dellu gannaaw benn yoon xew-xew yi daan xew di xew yu xal ko yu bari ngir tiital gi ñu tiital murid yi dem ba nguur gi ci boppam am jëmm joo xam ne wax na leen ne sëñ bi dafa denc ay ketale ci poudre ci gànnaay ba loolu tax ay mbokkam yi ko gën a jege ñëw wër ko di talal seeni wax di naqaral wax jiñ koy wax di ko wan ne yi lépp yaa nu ko yóbbee ndax musiba ngi jëm suñu moo xam ne xamuñu fu mu yeme mu ngi leen wan ne dara du yëngu ba loolu lépp wéy nga xam ne suñu borom mooy tàggat waxtu woo xamee ne nar na ab jaamam ak ci moom xetliwaali mbooloo moo koy jox leer bu mbiram leer ci loxoom ak ci kanamam ba tax du deng deng du dellu gannaaw loolu lépp dafa leen daan xamal ne dara du yëngu rek suñu borom loolu aadaama bépp waxtu boo xam ne ab jaam jëm si ci ne ci moom dana ko sàkkal ay noon yoo xam ne daf koy xiit ñoom jox leen kàttan jox leen i pexe ñu di ko xor ñooñal loolu lim ci jublu fiir bu mu fiir ci xorub wala mu jéng jëm si ñoom bu ko defee dana ci am ñoo xam ne suñu borom daf leen di musal ba seen lor joojee du leen wàññi dara am na ci ñoo xam ne léeg-léeg ci dogalub yàlla mu may ay seeni noon kàttan ba ñu lor leen loolu lépp ci xekkam boo xam ne jaam ñi xamuñu ko suñu borom a ko xam waaye Serigne Touba bokk na ci ñi xam ne dafa dañoo not seeni noon ba am la ñu bëggoon dem fi ñu dem fépp bi ñu dellusee la ñu doon bañ ñi di ko bañ ñeneen fi doon jëlee itam lépp lañ gisoon mu naqari leen ba tax ñu jëlee ko fa loola yokku te jéematuñ ca dara ndax xam nañu mënatuñ ko diggante boobu itam ñu am ay chef yoo xam ne yi nguur tubaab yee leen fi teg ñu ragal seen daraja wàññiku ndax xalaat nañ ne kenn faaleetu leen ndax ngëm gi ñu gëm sëñ bi ndax jël yi ñuy daan ak yoox yi ak gëm gi ñu gëm sëñ bi faaleetuñu dara ñoom chef moom itam fi ñu toll di lal ay pexe di tëral ay plan di bind ay plainte ci ñi ci bopp nguur gi ngir bëgg ñu sàkkal sëñ bi pexe bi nga xamee ni nag yooyu yëpp daje na doomi soxna yi jóg nañ taxaw ci di ko fexeel cedd yi jóg taxaw ci di ko fexeel nguur gi jóg taxaw ci di ko di ko fexeel loolu lépp teewul wakkil gi mu wakkil woon ci boroomam dafa gën a yokk rek taalibe yi itam mosu ñoo yox yi benn yoon lu mbir mi gën a piis gën a métti dañuy gën a dër rek ñu dem ba benn gouverneur bu ñu wax Thomas nga xam ne nee na sëriñ bi murid yëpp kenn ku ci nekk na nga ko delloo ci kër waajuram fa mu jóge woon sant itam cheikh yëpp ne leen ñi mu seexal ñëpp nañu dal di génn geet at moom nga xam ne 1895 la sëñ bi jóge Bawal dem sañ ci Jolof ba mu demee itam waa Jolof ñoom it yàlla del doon leen xiir ñoom itam ci xeet xiital googu ak naqaral googu loolu lépp day wane rek ne suñu boo jógee jëm ci moom tamat la nga doon seytaane dana xam bépp kuréel ak bépp noon rek ñu wal bëgg jëm ci yow. nguur gi itam seen njort dal di gën a ñaaw ndax foofee Touba Jolof boobu xalaat nañ ne Sayer ma ci ma ca Saalum foofu aw yoon la te mën nañ faa fexe loo xam ne duñ ko yëg te itam plainte yi ñuy plainte na defoon na plainte boo xam ne moo waral loolu te amoon na itam benn pël boo xam ne dafa doon woote ak yonent ñu ne dafa dekki gannaaw bu mu dee ba am ñetti fan xew-xew yooyu yëpp indi ay désordre yu bari ba tax na nguuru français bi sax daal di intervenir loolu lépp ñuy lu ñu dajale teg ko ci mbëggum sëriñ bi rek teg ko ci mbëggum taalibe yi mu teg ko ci mbëggum sëriñ bi loolu tëjul ba bi ñu fi jógee dem ci tukkeem boobu nga xam ne lépp lu mburu daj ca taar ca ca taal ba daj ko ëpp mu tumuranke tumuranke boo xam ne kenn mësul xam tumuranke bu ñu demee waaye dolliwu ko lu dul ngëm dolliwu ko lu dul wóolu dolliwu ko dul sax ci nekkoon ak doyloo boromam ni ko Seex Muusaa Ka waxe ne lu mbir rëy rëy da koy far dolli ak gëm du sukkandikoo ci mbam ba kudul boromam waa jaabur ba nga xam ne fekk nañ ko ndar te booba conseil privé bi décidé ne dañ koy sànki ba ñu tëree seen i pexe ngir bëgg ñu bàyyi ko def leen xal loo nii war bi bàyyi leen maag sama borom suñu borom rek doy dama li nga xam ne tumuraanke gi métti na ko métti li nga xam ne tiis bi tiis na tiis fu mu toll mu ngi safoo koor kon boole xiif ak mar ak coono yooyu la ba boobu mu jógee ndar jëm ndakaaru koor la an moom la yendoon ba mu àggee ba mu tàmbalee ba bëgg a dog juru la dog sax ñu woo ko mu dal di jóg ak kooram booba lañ ko tàbbal ci néeg bu doy waar boobee nga xam ne waxtaan nañ ko ay yoon te la waxee ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub mu daal di gën ci boromam ak wóoram gi mu wóoru yàlla gën a dëgër gën a sax gën a feeñ ndax moom mësula wonk mukk mësula binni yow mi jege sa borom te ñu la wonk yoon yàlla Zakaria bi nga xamee noon yi topp nañ ko ñu garab gi xaral garab gi xar mu dugg ca garab ga mu dee laf mbubb garab gën a kepp moo ci laf mbubb ma muy lang bi ko noon yi toppee ba agsi mu wan leen laf mbubb mi ne leen mu ngi fii ñu jëli siba di ko siyee ba xar bopp ba xar baat bi xar dana bi ñu agsee ci xol bi bi mu bëggee wonk suñu borom yebal jibril mu dikk ne ko boo wonkee rek ñu far saw ci diwaanu yonante yi yaxya ñu xar ko euh, ñu xar ko mu def ñaar garab gi def ñaar ñaari xaaji garab gi bii daanu fii ànd ak xaajub yaxyaa bii daanu fii ànd ak xaajub yaxyaa ba tey wonkul sëñ Tuubaa foofa mu toll woon lu natt yi tar tar tar tar xelam xalaatul wonk Zakaria yaxyaa yi dañ koo rendi amu ci ñoom ñëpp muy yonante yi kenn koo ci xam ne kii mbugal mas naa tar ba nga wonk wala nga tar tar tar wàññiwul dara ci jaamu yàlla fa xolam nekkam dara rënduwu ci te xam na ne doomu aadama yi dañuy nelaw rek bala ñuy yeewu dee bu ñu dee nag lañuy ñuy yeewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci gën a tar métit ki gën a tar balaa ci ëpp musiba ci nit ñi mooy yonent yi seen gannaaw képp ki gën a xaritoog yàlla rek mooy ci ëpp tiis loolu danañu xamal ne Sëriñ Tuubaa bokk na ci ñi gën a xaritoog borom ndax lim ko teg fukki atam yooyu fukki ati tiis yooyu kenn xamul fukki at yu ko gën a metti wala yu demee ne moom mu ngay xalaat yu xaasabul maru alal qitmiiri ma al fatiri wa alal naqiiri ndax loolu yomal xiyaam dong la ñuy xisaab nit ki ci lu toll ne pepp zarra war koo ko bi ñoom daañu ñu nag néegu ñu yomal xiyaam fu ñu toll ñu ngi leen di xisaab lépp lu tuuti tuuti tuuti tuuti ci loo xam ne indi na sikk ci seen xol wala indi yokkat wala war a dellu gannaaw dañ leen koy xisaab te xisaab si lañ leen koy wane moo tax seen mbir metti loolu dafa daal di kullama azwa matlubu sharufa saaba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasara taqabatuhu di nga jugee di nga jëm ci loola di ko wuti na mu gën a màgge rek la sóobuwaayu yoon woowu gën a jafe noonu la yoon wa gën a gudde noonu it la siifoo yi gën a bare loolu moo tax sëñ Tuuba a aqbalati dunya ilayya qablu wa bi'tuha fa zala anni al qablu wa baadahu li aqbalat wa inni aqbaltu lillahi wa abqa manni wa baadahu wa baadahu anni adbarat walam amil laha li kawniha daaratum adduna wan na ma adduna jublul ma naat lool li tax lool neex lool ma jaay ko sama borom tënk bi nga xam ne moom la ñuy tënk képp ku jëm ci yàlla daal di dañ ci samay tànk man bi ma adduna jubloo yàqalu ma dara mu ne naa ko woon gannaaw ndax mu ñàkki badahu lii aqbal mu dal di wëlbatiku jubloo ci moom nee man ma jublu yàlla rek xaw ma jublu na xaw ma dëddu na sama yoon néewu ci wa badahu an ya adbarat wala mu amin laha mu dellu ma wanati gannaaw ndax ma ñàkki wala ma keesu ko ma wëlbatiku jublu sama borom rek ndax àddina kërug lëndam rek la dafa leer képp koo xam ne kii jaaruloo ci jaarwaay yooyu ñu natt la ci àndaar yooyu nga fees ko war nangoo addu ñeme nga bor ëllëg loolu moo taxoon mu ne wax tabir rijaala qabla suhba wala tusaahibu xubran aw za rahba nee na seytaane day fooye xolub doomu aadama ni xalal yi di fooye bal yi amee coupé yi boo seetee muy koo xam ne matal na charte li ñu tudde mu jag lépp mu jag lépp mooy yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon bopp bépp téeméeri at ci sama xeet suñu borom dana yebal waa joo xam ne dana yeesalaat diine bu fekkee mu xomaan dana ko fopp jiw ko ba mu mel na meloon ba muy bees mu teg ko ca place ba gën a tedd ko muy soppeek suñu borom boo xam ne suñu borom ci boppam xamal ne ko ne yaay sama soppeek mu ne allahu xibbi abadan wallahu xibbi wala ilaha illa allah suñu borom mooy sama xarit faw te mooy sama soppee kenn du buur ku dul moom suñu borom sopp ko xaritoog moom ba nëbbal ko mbóot moo xam ne ump na beneen jaam bu dul moom wala xaaba sirran xaaba an xayri il muhim moo tax mu ne axfaaliya sirral masoon allahu xubban wala ilaha illa allah kon bëgg gi ko suñu borom bëgg leer na te suñu borom xamal na ko ko te leeral na ko wet bu nekk mu jagleel ko loo xam ne jagleelu ko keneen mu di tawaytu tariqal qawmi waqtam ci daaxihi wali qad qadal xaajaat bi rawdi al bakk bu may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax tagg yonent bi man lañ ko jagleel maay asna xadim ñi liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp maa ci féete kaw bu ma ko dee tagg yoon bi nga xam ne ay ati ati ati ati at la ko gaa ñu baax ñi di jàll dama koy taxañ tukki avion ca gën a gaaw moo gën a gaaw mbaam gën a gaaw fas loo tax mu ne sabaqtu bi tayyi qawman jaahadu zamanan ahyu al-ashiya liman yahbub min naati jiitu naa gaa ñoo xam ne jihaar nañu ci yoonu yàlla jamono bu yàgg ma jóg rek jiitu leen ndax taxañ giñ ma taxañal yoon wi taxañ gi yoon wi lu leer la nan la léegi waristu fi madxi nabi xasaana doon naa ibnu saabit doon naa bala nga gëstu mu ne la wa fii madhihi jaawaz kaaban wa ci tagg yonent bi jéggi naa xasan ak ah, eh, jéggi naa xasaan ak kaab bokk na ci li nga xam ne suñu borom jagleel na ko waxtu wa nga xamee ne conseil premier bi kon nag day conclure boobu kon nag mu tagg waxtaan li ci gënoon a neex yàlla dëgëral ñu mën koo wax kon nu gàtt la ci ne rek suñu borom doon na ko ak tab ci ñëw yëpp waaw la ñu amee woon mu amee ko ba noppi ñu jox ko loolu boppam loo xam ne bokku bokk kenn nee képp koo xam ne suñu borom nar na sa mbugal la ëllëg da nga koy wan gannaaw ndax Mamadou Bassirou waaye mu wow nekk ci na li nga xam ne li Ahmadu Bamba boole na ko may gaa jooju le ne yaara imal kamali saada min turuqil mashaayikh salaasa tariqatu cheikh limaam al-jiili wa sal bi daal lu mu gën a gàtt daal rek wax naa ko moo di doon na borom yoon yëpp seen mbir nekk nañ ca meloon boo leen wér boppam nga xam ne ñu ngi ko ko joxe sartaara ne lépp lu rafetoon ci beneen wird wu mu doon boole nañ ko ca booleeg yëfi boppam jox nañ ko ca sartaara ci atum junni ak ñett téeméer ak ñaar fukk ñaar ci weeru koor bi wàcc ci rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi wàcc ci jibril ndax di ko gisub yonante bi ak gisub jibril lu leer la limaamu Suyuuti nettali na ko ci téeram bi nga xam ne moom lañ tuddee royatu nabi wal malak fi imkaan tanwiirul xalaq fi imkaan rajo kon nag ñu yem foofu beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala kon nag mbokk yi yaakaar naa ne noo déggandoo Serigne Sam Mbaye nga xam ne. moom it ci wax jooju lii la tontu. maa ngi lay sant bu baax. sëriñ bi nee ngi leen mi sant bu baax. yow mi di la gërëm itam. ñu nuyu itam président. nee mi ngi nuyu président di ko sant. di ko sant di ko gërëm. di ko gërëm. yéen ñi nga xam ne yéen bi yow ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal te jiite leen. ñaan loolu nga wax ni itam bëgg nañ ñu def ko ñaan ko gi itam defal ko sas boo xam ne sa nii du booy incha allah. nee ñaan boobu nga xam ne sàkku nga ko ci turu réew mi. ak euh, borom réew mi def na ko aw sasam moo xam ne fas ni yéene du booy. incha allah incha allah. <laughs> ni ci taalib yi. mu ne ni ci taalib yi itam. li ma leen daan dénk moom li mu leen daan dénk. Mm. moom nag barki dem moom moom la leen di dénk ba tey. Mm. moo di ñu sax ci jaamu moo di ñu sax ci jaamu yàlla. ci sunna. ci sunna. sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. te wattandiku ak tooñ. te sax ci ak jub. te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk euh, di muy mbirum adduna ji. te ñi nga ak mbirum te ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk euh, mbiri adduna ji ñuy seen kilifa itam. waaw ñeent di mënalante ak ñoom. ñeent defar ñoom mu daara ba ci gën ba rafet. te lépp loo xam ne luy soxla lañ soxla soxla nañ ko. Mm. te suñ suñ diine tëriwu ko. yéen ak ngeen ànd ci ak itam lépp loo xam ne soxla nañu ko te nga xam ne suñ diine ko ngeen ànd ci ak ñoom. بارك الله عليه وسلم وسلم تسليما رب اوزني ان اذكر نعمتك التي انمت علي وعلى والدي وان اغمق علي قولي وادخلني في عبادك الصالحين قلنا ذكر الذي تلك اذانوني ماذا يفعل من بعد مكنون قلنا ذكر الذي تلك اذانوني